salaamaaleykum mbokk yi leen nuyu ñëpp leen siyaare ah léegi ñaan jaan bi sàkku si bu baax a baax ñëw yéen si xibaaru tàggat yaram yi di ñaan na képp ku aboneegul nga aboné bës kolos bi nga xam ne dugal la bokk si njëkk njëkk jot xibaar yi ki doon ko may mo di safar déko yor xibaar yi doole ko ci Ismaïla Sarr nekk Watford championnat Angleterre Sky Sport neen Ismaïla Sarr Watford woon Newcastle ni kaay ma jaay la ko ci 40 millions livre sterling ci fàttali Watford mi ngi D1 Angleterre mais instant yi toll ni il est très proche que mu wàcc D2 Ismaïla Sarr nee na bëggul jiwaat diwoon encore D2 ci fàttali daaw jéeg ba Watford wàccee Ismaïla dafa nangu Angleterre waaye ren jii agent am nekk Thierno Seydi doomu Sénégal waxoon na carrément Ismaïla Sarr da jóge Watford soit mu des Angleterre wala mu dem Italie ci fàttali ba léegi tamit AC Milan bëgg na trop Ismaïla Sarr waaye Ismaïla tamit Newcastle bëgg na ko trop ci janvier bii nii Newcastle ñëw na indi xaalis yu bari waaye fekk Watford nekkoon ci problème mu bañ encore Ismaïla Sarr dafa blessé woon bëgg woon dem fenn moo tax mu toog instant yii toll Sky Sport nee na Watford woon Newcastle ne kàmm jaay ko si 40 millions de livres soo ko bëggee ki xam le mooy Sky sport jógee ci Ismaïla Sarr dem ci waa Maroc bi sport bi nee na Maroc woo na André Villas-Boas ni dem bëgg coacher suñu équipe nationale bii di Maroc bu ñu dem mondial li ko waral mooy kii di xali logique seen coach jamono jii dafa bëri zone yoo xam ne dañuy écarté équipe nationale bu mel ni ki Mazraoui ak ñoom kii Hakimi Ziyech moo tax Maroc bëgg ko changé indi kii di André Villas-Boas nekkul ay jamono entraîneur Porto ak Marseille ak Chelsea. waaw ndax euh, Maroc lu ñu bëgg mooy bu ñu dem mondial yóbbaale GS ak Mazraoui te santoon ne coach ba fa nekk di xale logique jiwul ak Mazraoui jiwul tamit ak GS moo tax Maroc ba soppi indi kii di Villas-Boas ko xam ne mooy biin sport ñu jógee ci waa Maroc waaye ba léegi ñu ngi ci waa ñu ci marocain yi Bill nekk journal bu mag ca Allemagne la ma xam ne mooy Mazraoui nekk latéral droit ca ay Amsterdam jiwoon na ak lépp ci waa Bayern Dominique def na visite médicale ba pare maanaam dem na Allemagne ñu xool yaam ba lépp yemb na incha allah bu fekkee dara soppiku diggante bi fii gannaaw suba dana signé contrat am ak waa Bayern Munich dem jouer fa ci fàttali gone gi l'état dara bu baax la offensivement il bon défensivement il est trop bon macha allah te fàttali Barça yi bëggoon na ko waaye gone gi Bayern ñëwee dugg ca mbir ma Bayern dam fay mu nu ko fay moo tax ñu si yoonu dem Bayern Munich ko xam ne mooy bill la. jóge ci Mazraoui dem ci waa Real de RMC moo xam ne RMC na fan ñëw incha allah feeg lundi Real ak waa kër Mbappé pour waxtaan ëllëg Mbappé ba xam day ñëw Real am déet ci fàttali Mbappé yaayam fanee passé demoon na ca Qatar fekk fa waa Paris Saint-Germain yi waxtaan ak moom ba xam dama yokk contrat am déet waaye sama mbir ñëw altine waa talaata incha allah yaay Mbappé ak waa kër Mbappé yi doon toog ak waa waa Real de xool nu ñuy def ba Mbappé jógee ca Paris dem ca Real fàttali Mbappé jamono ji ba léegi yokk contrat waa Paris te ba ngay jëm lu mu mën ñu yokk contrat am waaye Real li mu gëm mooy accord bi ma ak Mbappé maanaam jubóo ci kàddu Mbappé du ko mos a yàq mukk dem feneen wala mu yokk contrat ak Paris Real jàpp na ni Mbappé tôt ou tard day ñëw Real Paris ma ngay jëm lu mu mën ngi yokk contrat am mu toog PSG doxal ka xam ne mooy RMC Sport. jóge ci waa Real de Madrid dem ca waa Barça Sport nee na um tuuti nekk Barça te instant amul temps de Barça. ndax président ba ñu ko bëgguma la Xavi ñu ne koy bëgguma la waaye équipe ba France da ngay topp pour jënd ko mu ñor mu ñor France gu mu nekkoon ku mel ni ki Nice Rennes ba ci Montpellier ñu ngi koy woo Barça bu jeexee mu dem France ga mu nekkoon waaye moom li mu bëgg mooy delluwaat Lyon ga mu nekkoon ci fàttali moom Barça mu ko jënd woon ci Lyon waaw bëgg mooy bu jógee Barça mu demaat Lyon ga mu nekkoon jëyu fa waaye bëggul dem Nice Montpellier ak Rennes li mu bëgg mooy delluwaat Lyon gëm nekkoon di ba léegi ah mu jógee ci waa Barça yi ci waa Paris Paris dafa bëgg milieu terrain bi nekk Salernitana doomu Brésil tudd Ederson am 22 ans milieu terrain bu baax la défensif lay football nag milieu terrain bu baax la macha allah waaye président wu équipe ba de Salernitana la ma xam le mooy gone gi milieu terrain bu baax la offensivement baax na défensivement baax na kon prix bi ngi koy jaay ñu ngi koy jaay mi ngi toll si 30 ba 35 millions d'euros wala nga koy jaayee ma nga xamee loolu nag ci journal bii di La Gazzetta la Sport kooku mooy président Salernitana gone gi gone gu mën football la macha allah mu ngi tey bu baax la ma nga ca Serie A bu italien ba pare da koo bëgg mi ngi tudd Ederson nekk doomu brésilien nga xam le mooy La Gazzetta dello Sport. duggee ci waa Paris ah. dem ci waa Reims. seen gone gi tudd Hugo Ekitike nekk attaquant mu dugal macha allah. gone la mën na football trop te mën dugal waaye ESPN nee na Bayern Munich ma nga ca ak Manchester ña nga ci pour jënd ko yóbbu ko almaañ wala Angleterre muy doxal waaye ESPN nee na RMC lu mu laaj bariwul ci xaalis la mu bëgg moom képp képp ku ñëw boo indaalee fukki million ak juróom ci xaalis euro dina la ko jaay waaye nag duñ sa wéet Arsenal ma nga ca ak Newcastle ma nga tëgg jënd ko gone gi attaquant mën dugal la macha allah xare bu ndaw la waaye prime seerul ESPN nee na. Reims lu mu bëgg mooy képp ku ñëw indi fukki million ak juróom dina la ko jaay nga yóbbu ko sa équipe muy dox doxal. waaw ma yi foofu la jeexee yaakaar naa. ah kon gaa yi ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm sama réalisateur bi moo doon assuré tey ndax baat bi moo ko waral maa ngi sàkku ñaan gis naa ñaani dolli leen léegi tey baat bi wér incha allah yëpp teguwaat ci yoon ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp. rawatina suñu sponsor bii di 18 safar deko moo leen doon may xibaar yi ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah. dal leen ak jàmm ci 18 safar deko di ñu xew ci jamono taman lool la ñuy liggéey lépp lu ngeen bëgg ci wàllum plâtre peinture décoration amun ci morom seen seran ba di xaadim ñu ñëw ak seen nouveau modèle yu yànj yi nga ne ñëw ban model moo lay daaneel ak foo mën a nekk ci biir réew mi jokkal ak ñoom ñu fekk la fa defal la liggéey bu mucc ayib dinañ gaaw te yéwén ci lool ci ay prix yu xéewale nag